ginnaaw bi nu sant sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa tey dañoo amoon fii macha allah événement bu boo xamante ni événement gënu ko muy wàcce maanaam ñu mokkal alxuraan donc tey dañ fi ñëwoon euh, pour barkeelu ci événement bu am solo bi muy ñoo xamante ni dañ jàng alxuraanul karim te mokkal ñaar fukk ak benn waaye nee nañ ci gën nekk xale na fukki at ak juróom-benn jëm kaw ñu nekk ñaar fukki xale ak benn yoo xamante ni tey maanaam li ñuy wax bokkal alxuraan euh, moom lañu doon def si tey événement bi nag euh, gis nañ ci ko présider muy sëñ Mansour bu Alaaji Abdou Aziz Dabakh ak euh, sëñ Babacar Sy bu Alaaji Abdou Aziz Dabakh ak personnalité yi tase yëpp tey man nag ma am mbégte ci fekke gi ma ko fekke ndaxte ku nekk xam na ni mokkal alxuraan euh, yombul mokkal alxuraan mooy li ko commencé naas ba baqara mën nga ko tari waaye mën nga ko bind lu événement bu mel noonu nag bu doon benn nit rek macha allah kenn amul fayam ak euh, ak fekke ko mais tey muy ñaar fukki xale ak benn yoo xamante ni tey ci fii ci zawiya El Hadji Malick Sy di suñu maam radiyallahu taala anhu ñoo doon ñëw fi tey maanaam ñu leen di décorer eh, gis nañ le monsieur maa ngi nuyuwaale au passage monsieur le maire eh, de la commune de Tivaouane mon frère mon moom aussi mu ngi fi donc mu nekk daal événement boo xamante ni tey macha allah suñu dimanche bi ah, yàlla na yàlla nangu ñaan yi ci def yëpp waaw fii ci Zawiya El Hadj Malick di profité ci nag aussi pour ñaanal réew mi euh, mais aussi ñu ñaanal aussi ki nga xam ni moom na ci bokk réew mi di président Macky Sall yàlla gën ko may kàttan gën ko may doole gën a rafetal liggéeyam euh, taxawu ko ba incha allah fi mu bëgg a jëme réew mi mu jëme ko fa voilà ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan mbas mi nag fii ñu nekk ci zawiya El Hadji Malick Sy yal ko yàlla jëlee ci réew mi mais jëlee ko ci Afrique ci àdduna bi yëpp donc tey daal lii moo doon suñu tànk ñu am mbégte lool fekke événement bu mag bii di wàccewu alxuraan di mokkalu alxuraan ñaar fukki xale ak benn yoo xamante ni fii lañ nekkoon ci zawiya El Hadji Malick Sy xam nga ñun ay taalibe lañu euh, fii taalibe lañ ci kër gi mais taalibe lañ ci ëttu diine yi nekk Sénégal yëpp. waaw parce que ay jullit lañu suñuy waajur aussi ci lii la ñu taqan toqantal donc fu ñu dégg daal macha allah mbiru diine bu ñu amee dinañ jéem a trouver jot gi ba fekk ko waaye lii nag alxuraanul karim la ñu koy defee ci zawiya El Hadj Malick bi donc loolu moom euh, suñu suñuy waajur suñuy maam euh, ay taalibe lañu ci kër gi suñuy bàyyi ay taalibe lañu ci kër gi suñu waajur yëpp. donc looloo tax ñun aussi dañuy continuer perpétuer loolu nga xamante ni suñu waajur ak suñu maam ak maamaati maam moom la ñu nekkoon fii ci suñu maam yi ba léegi ànd ak Alxaaji Maalik ba ci ñun donc lu fi xew rek ci kër gi ñun ci lañu bokk ñun ci lañu bokk looloo tax dañuy ñëw assister ko ak fierté euh, jël si ci euh, barke bi jël si ci ñaan gi parce que ah, ku nekk xam na ni zawiya Alxaaji Maalik si bii lépp lu fi waay ñaan yàlla subhanahu wa taala dina ko nangu bon ñun xam nga macha allah euh, ñu ngi fii boo xoolee am na sax benn euh, association buñ fi am boo xamante ni dafa taxaw pour loolu maanaam romb nañ sax loolu parce que dañ fiy def ay réunion mensuellement euh, pandémie bee tax ñu gëj fi daje waaye am nañ fi association bu mag boo xamante ni mu ngi nekk association bu Zawiya El Hadj Malick Sy man Mamadou Thiaw mi sama trésorier bi donc association boobu pour jàppale kër gi rek la waaw donc pour jàppale xale yi fiy jàngale mais jàppale aussi enseignants yi nga xamante ni ñoo ngi fi nekk donc vraiment ñu kilifa yu bëri ci lañ bokk monsieur le maire la bokk ñoom Pa Bachir Ngom sëñ Mansour bi mooy président bi ñoom Pa Bachir Ngom maanaam kilifa yëpp ñoom professeur Makumba Gueye professeur Abdou Ba cardiologue ñun ñëpp ci lañ bokk muy association bu mag a mag a mag dañu ko jëpp pour taxawu zawiya Alaaji Malick bi nga xamante ne xale yi fiy jàng dinañ nekk dans d'excellentes condition donc boobu man maay man maay trésorier bi te maanaam bi biñ ko commencé defe naa xaw na yàgg tuuti euh, ñun nag aussi ñu ngi doon préparer sax macha allah ni dañuy bay pour gën ko jàppale zawiya bi demoon nañ ba trouver benn espace donc ñu ngi woon ci dem beeg dikk bi waaye euh, incha allah euh, tool yooyu bu taxawee rek euh, li nga wax léegi ci jàppale xale yi day daal di gën a yomb parce que ku nekk xam na ni bay dafa am barke. ca ñun ci loolu lañ bëgg sukkandiku pour gën a taxawu zawiya bi ba nga xamante ni yi fi nekk yëpp dañ ko mën a lijjanti mu nekk xaalis bu lew macha allah. di santaat yàlla euh, di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di ñaanal kilifa diine yi nga xamante ni ñoo fi nekk fii ci Tivaouane ak ci Sénégal yëpp yàlla defal leen jàmm may leen gudd fan a wér may ñu ko ci yàlla jële fi feebar bi di leen gën a sant ñoom kilifa diine yi parce que tey bu ñu ñimee euh, ak li ñuy def lépp ginnaaw yàlla seen taxawaay ci suñu kanam ñoo ñoo ñu dëgëral donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaan ñu ñoom kilifa diine yooyu ginnaaw bi leen yàlla maye gudd fan ak ba pare ñu ngi leen di ñaan ñu ñaan pandémie bi jóge fii ñu ñaanal président Macky Sall ñaanal ñu ñëpp bu ko defee Sénégal euh, yàlla def fi jàmm euh, nawet bi aussi ñu dugg ko bisimilahi rahmaani rahim génne ko alhamdulilahi rabil alamina ci barke euh, sangu bu tedd bi tëdd fii muy El Hadji Malick ak njabootam yëpp ngi leen sant di leen gërëm leen di leen jéggulu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu